tey dañu ñëwoon di organiser sargal le président Macky Sall euh, ndax le mouvement Marème Rema euh, dafa nekk benn mouvement boo xamante ne day liggéey pour gën a yaatal ay base président Macky Sall dafa nekk mouvement boo xamante ne day jàppale président Macky Sall ci social euh, bi nga xamante ne jàpp nañ li nga xamante ne mooy sargal le président Macky Sall ñu ànd ceeg la plateforme xëppil xool li ci Macky def xippil xool li fi Macky def jàpp naa ne kuy sargal président Macky Sall moom ngay jàppale ndax ñëpp xam nañ taxawaayu plateforme xëppil xool li fi Macky def ci wane liggéeyu Macky Sall ñëpp xam nañ taxawaayu plateforme xippil xool li fi Macky def ci social bi ñuy accompagner le président Macky Sall ñëpp xam nañ aussi taxawaayu plateforme bi ci accompagnement bi ñuy defal les étudiants ci turu président Macky Sall kon seem ñooñu lañ koy defal waxatuma laak le mouvement Marème nekk benn mouvement politique boo xamante ne foo dem ci région Sénégal nga fekk ko fa foo dem ci continent àdduna bi nga fekk ko fa suñu jugee ànd ak ñun ngir sàggal le président Macky Sall day doon loo xamante ne le coordonnateur Pape Doro Gaye daf koo rafetlu moo tax mu accepté nekk le président d'honneur du mouvement ma te lenn képp moo ko ci jublu mooy que fépp foo xamante ne président war na faa am lu mu def te jotewu fa mu ànd ak waa mouvement ma def ko fa lépp loo xamante ne war na koo mën a def pour accompagner mouvement Marème ñu gën a taxaw le président Macky Sall gën a yaatal ay base président Macky Sall gën a wane liggéeyu président Macky Sall mu jug ànd ak waa mouvement Marème jàppale leen ci loolu kon tey suñu teewee fii ci turu Pape Doro Gueye ànd ak suñu délégation Abdou Aziz Kane ak Bour Guéwél ak Ibou bu Pikine ñun Bangoura bu Dalifort jàpp naa ne euh, def nañ li ñu war ndax le président Macky Sall liggéey na loo xamante ne ci Sénégal secteur boo laal président def na fa yokkute boo xamante ne njiit yi fi jaaroon wala njiitum réew yi fi jaaroon kenn mësu ko cee def moo xam économie li mu ci def mi ngi fi tege moo xam éducation li mu fi def mi ngi fi tege moo xam infrastructure li mu def mi ngi fi tege moo xam financement des jeunes li mu fi def mi ngi fi tege moo xam formation mën nañ lim ba suba kon ku mel noonu suñ ko amee ci suñu boppum réew day baax bës jot askan bi yëpp taxaw sargal ko sagal ko ñaan yàlla mu gën a am taxawaay ba fi mu jëmee réew mi yàlla mën ko faa yeggale kon tey dañoo jàpp ne euh, Macky Sall le président Macky Sall chance Sénégal la le président Macky Sall chance Afrique la le président Macky Sall chance monde bi la ndax leadership bi nga xamante ne am na ko dans le monde entier euh, moo tax sénégalais yi war a gëm ne fi mu ne dam fay dafay jëmale sénégalais yi dina fa yegg moo tax nit ñi war a gëm ne lim ne dina ko émerger ci Sénégal ñu war koo mën a gëm ndax nag euh, ku la dig neexal la su la nee su ma ñëwaatee dinaa la dolli war nga koo gëm ndax le président Macky Sall li mu fi liggéey ci ba mu nekkee bopp réew mi ba léegi jàpp nañ ne fii juróomi at wala fii fukki at su toogaatee ci bopp réew mi dinañ raw sax Paris wala ñu raw New York ndax euh, li ñu gis mu koy def biir Sénégal moom la ñuy gis Europe. li mu gis infrastructure yi mu taxawal Sénégal moo am dans les grandes capitales du monde kon ku mel noonu je pense que doyalaguñu ñun ci moom mm-hmm. doyalaguñu ci moom te ñi ngi ñaan moom aussi mu xam ne Sénégal soxlawaat nañ ko ba fii ak dix ans ci kanam ngir ñu bokk parmi les pays les plus développés du monde ndax fi mu teg Sénégal ak liggéey bi mu indi Sénégal ak rigueur bi mu indi Sénégal ak taxawaay bi muy taxawu sénégalais jàpp naa ne fii ak ay at yu néew dinañ bokk parmi les meilleurs pays d'Afrique ku gis aussi li ñu ko jagleel mu nekk président de l'unité africaine loolu dafay wan leadership bu président Macky Sall loolu dafay wan ne ñun doomu Sénégal war nañ mën a fier ci ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ndax taxawaayam ci réew yi taxawaayam ci conflit yi am taxawaayam ci politique internationale yi am moo tax mu am leadership boobu ba waa Afrique nangul ko ko waa Nations Unies nangul ko ko bépp kuréel bu international bu nekk ci àdduna bi nangul ko ko kon kooku jot na vraiment Sénégal gépp jug taxaw sargal ko ko te sargal bi duñ ko yemale Grand Théâtre dinañ ko sargal Grand Théâtre dinañ ko sargal dans les quatorze régions du Sénégal fu ci nekk dinañ fa dem ànd ak mouvement Marème ànd ak responsable ya fa nekk ànd ak ña gëm Macky Sall nekk fa sargal président Macky Sall ndax région bu ne war ngaa mën a sargal la président Macky Sall. Marème Réma comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan dafa jox boppam dafa tuddee boppam Adja Marème fay Sall tuddeewuñ ko nag nii rek ndaxte dañ ko tuddee ndax dafa nekk ndaw soo xamante ne ñëpp nangu nañu ni ku baax la ku yaatu la ku yaatu ku yaatal ñëpp nangu nañu. ndaw si xolam dafa rafet di gunge nag président Macky Sall di borom këram ci liggéey bi nga xamante ne moom la ko Sénégal confié Marème fay Sall di donc turandoo Marème Réma mais Marème fay Sall aussi euh, ñu koy sargal à travers son époux le président Macky Sall ndax Marème Réma turam mooy lan réalisation de Macky Sall pour not avenir maanaam ñun suñu liggéey mooy lan ci suba ba ci ngoon waxtu bu mu mënta doon amul samedi amul dimanche lépp loo xamante ne président Macky Sall mi ngi koy defal Sénégal moo xam nag ci pacc boo ci ñun dañu jóg pour fësal ko am na ñoo xamante ne xëy na du ñu gis xëy na amuñu information ñun nag dañoo jug pour fësal loolu yëpp pour que Sénégal ba ci gën a sori ba ci dugg ñëpp gis lii son excellence Macky Macky Sall di def ndax weddi nag gis bokku ci. te li ñu war a gis bëri na récemment gis nañu teer bi gis nañu stade bi mu tuddee papam Ablaye Wade le président Macky Ablaye Wade gis nañu pont yi mu tabax yëpp gis nañu auto pont yi mu tabax yëpp gis nañu li mu defal jàng mi ak jàng bi ak jàngale bi gis nañu temps yi jàppale na jàngalekat ci ay indemnité lu tollook ci lu ëpp 48 milliards kooku nag ah dañu olof dafa naan ko dul gërëm nit doo gërëm yàlla ndax yàlla wërsëg Adama da koy jaarale ci nit comme nag yàlla moo fi teg président Macky Sall te boobu léegi mu jig mu jig nañu lool ndax am nañu enfin la coupe d'Afrique ak yeneen ak yeneen yu ñëw ñun dañu ne jot na kat Marème Rema comme ñu ñoo tuddee suñu bopp Marème fay Sall comme ñoo jug pour fësal li mu def des jot na nag ñu sargol ko donc tey bésu son excellence mu ki Macky Sall mooy suñu lider moom la ñu topp ndax moom la ñu gëm dañ ko gëm. ndax xam nañ moom mi ngi liggéey réew mi voilà donc euh, ci tënk loolu moo ñu fi indi tey mu nekk bésu bànneex mu nekk bésu bànneex Marème Réma nekk ci région Sénégal gi yëpp nag Kédougou sax ñu ngi fa tey ci saal bi waa Kédougou ñu ngi fi waa Tamba ñu ngi fi waa Ziguinchor ñu ngi fi waa Sédhiou ñu ngi fi waa Kolda waa Matam waa Ranérou ñëpp Dakar nag bàyyi ko Thiès Pout ba ci Karang Sokone ñëpp ñu ngi fii Sénégal en miniature moo nekk ci salle bi ndax signaar Sénégal en miniature moom mooy sargal euh, suñu njiitu réew di El Hadj Macky Sall